borom diwaan borom diwaan borom diwaan Cheikh ma paate bolle ndaak mooy borom diwaan borom diwaan borom diwaan sopp Cheikh ma paate si la diwaan dafa nii sa loxo ñu mat borom diwaan borom diwaan borom diwaan borom diwaan borom diwaan borom diwaan da baat te bolle ndaak mooy borom diwaan borom diwaan borom diwaan borom diwaan borom diwaan da baat te bolle ndaak borom diwaan borom jamil borom jamil borom jamil

mooy borom diwaan borom diwaan borom diwaan sopp si ma fàtte si la diwaan dafa nii sa loxo ñu mag borom diwaan borom diwaan ah borom diwaan borom diwaan borom diwaan borom diwaan papa te bol la ndax mooy borom diwaan borom diwaan borom diwaan borom diwaan borom jamil borom jamil borom jamil na baa jabon la ndaa borom jamil borom diwaan borom diwaan borom diwaan borom diwaan na baa jabon la ndaa borom diwaan rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Modou Kara Sylla di jiital ci nuyoo bi sëriñ sëriñ Modou Muxtaar Mbàkke xalifa sëriñ Touba di ko ñaanal saa borom oyofal yan bi ba mu àggale ba mu àggale liggéey bi ci ni mu ko bëggee di jiita di nuyu sëriñ Abbas Mbacké di ko ñaanal saa borom àggaleel ko li muy liggéey di ko di ko ñaanal ci maamam ju baax ji saa borom may ko kàttan gu ma ko mën a àggale di ñaan sëriñ Seex Fat Silla Njaay xalifa sëriñ ma paate Silla saa borom may ko ak wér ba li mu naal ci diwaan saa borom àggale ko jàmm di ñaanal sunu waajur wi nga xam ne moo fi jóge yàlla yokk ay leeram di sëriñ Cerno Silla moom sëriñ ma si la ginnaaw bu loolu jàllee ñu jiital ci nuyoo bi sëriñ Koso Sylla di suñu baay di ko ñaanal saa yàggal ko fi ba li mu yéene saa borom may ko kàttan gu ma ko mën a àggalee ginnaaw bi loolu jàllee ñi nga xam ni ñu ngi sant sëriñ Modou Kara Sylla moom sëriñ si la di ko ñaanal li nga xam ne moom la ko baayam ju baax ji bàyyee woon ak li nga xam ne moom la ko sëriñ Cheikh Fan si la bàyyee lépp ñu ngi koy ñaanal saa borom may ko kàttan goo xam ne li nga xam ne moom la baayam naaloon sëriñ Cheikh Fan Ndiaye naal ko yàlla na ko yàlla may kàttan gu mu ko mën a àggale ginnaaw bu loolu jàllee ñu ngi nuyu bàjjan Njóoba Silla moom sëriñ ma paate Silla ñu ngi koy nuyu lu baree bari di nuyu Cheikh Cissé moom Malick Cissé mi jiite Unacois ñoo ngi koy nuyu lu baree bari ginnaaw bi loolu jàllee a ah, yéen mbokk yi liñ leen liñ leen di njëkk a nuyoo mooy li nga xam ne moom lañu sëriñ Modou Kara la santoon ñi ngi rafetloo li nga xam ne teew ngeen ko te doxe ngeen ko ndax mboolem koo xam ne yaa ngi fi teew nga bàyyi nga la ngay def bàyyi nga lépp yéen ñi nga xam ne yàlla def na ngeen di samay mag ñii di samay rakk ñii di samay taalibe ñii di suñu am di jàmm kenn ku nekk bàyyi na la muy def lépp dikk fii ci baas bi ci ndigalal sëriñ Modou Kara la kon ñun ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaanal waa rajo bi saa borom may leen li ñu yéene ci yoonu sëriñ Touba yi yàlla na leen ko yàlla may ba ñu àggale ko ni ñu ko bëggee. kenn ku fi teew rek ñu ngi lay sant te ñu ngi lay sant di la gërëm te di la ñaanal lépp loo xam ne am nañ ko ci ay ngëneel ci màggal gi yàlla nañu ko yàlla boole loolu ñu ngi koy ñaanal ñëpp bàyyiwuñu kenn a ah, ginnaaw bi loolu jàllee ñun de sunu xol sedd na ndax mbooleem ñoo xam ne ñoom laa bokkal borom diiwaan tey ñu nekk bii di samay rak ñoom ñëpp kenn ku ne bàyyi na la ngay def ñëw teew ci liggéey bi ba mu dooree ba léegi kenn ku nekk yaa ngi ci liggéey bi kon moom ñu ngi leen di sant di leen gërëm daayira bi nga xam ne ñoo nekkee tuubaa ñoom itamit ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wan ne seen liggéey rafet na sëñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax mbooleem koo xam ne mi ngi fi teew rek sant nañu la gërëm nañu la jigéen ñi nga xam ne ñoom i tamit ba ñu xëyee ba léegi ñi ngi bàyyi lépp ngir màggal gi kenn ku nekk bàyyi na la nga def lépp ñëw ci baas bi ndax yàlla ak yonente bi ak Serigne Touba ak Cheikh Ma Pata Sylla kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu ngi ñaan ci yàlla ak yonente bi ñi nga xam ne ñoom laa bokk bokkal Cheikh Mapaté Sylla muy baay di mag di rakk di taalibe ñu ngi di ñaanal kenn ku nekk li nga yéene ci sëriñ Serigne Mapaté Sylla yàlla na la ko yàlla dafal man de sama xol sedd na ndax li nga xam ne moo am solo mooy nga woote ñu wuy si la te yàlla def na bi ma wootee ñëpp wuy si nañu waaye nag loolu lépp ñu ngi koy sante Serigne Modou Kara Sylla mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Cheikh Sylla diwaan kon ñu ngi koy ñaanal saa borom guddal aw fanam ba li nga xam ne moom la Baye Cheikh teg ci loxoom ak li nga xam ne moom la bàyyam seen Seex si la naaloon lépp yàlla na ko àggale ci jàmm ak salaam bali mu naal ci diiwaan yàlla na ko ko yàlla may loolu laa ne woon dinaa leen ko yëgal xanaa nag dañuy bàyyee kàddu gi sëriñ Modou Kara si la xalifa sëriñ Seex si la diiwaan bakk jàmbaari daaro sëriñ ma paate xeralu leen ma bakk jàmbaari diwaan sëriñ ma paate seex boole baayu seex si la sa ju baax jaam fu la seeti na mbër ma xam yilla Seex Bamba borom xarnu bi sëriñ ma paat Ablaay Si rakkam nga ay géwéntam la ko waxoon agal xomaak siyaare ban am ay ngërëm ci xarnu bi yaram ba Seex ma paate yor addiyaam jëjëm xomaak yegg ji see karaw ci mag yi wan ci fii ci xarnu bi sëriñ ma paate na di dox ba dem xomaak xaddimu yan ko gaal gu mag xamal ko mbooti ceerno ak xar baax ya gën ci xarnu bi mu boole ko xalilu laay maam ceerno may borom wi laay mu koy jëfal ba Cerno xëy may ko lu jom boo xarnu bi mu boole ko xalilu laay maam Cerno may borom wi laay mu koy jëfal ba Cerno xëy may ko lu jom boo xarnu bi bu weeru kortero muy rey ba ya xar ak gëléem gu boole ko togg yot ko këy borom ndimbal ci xarnu bi ba Cerno mbar ma woo ko naa bamba mu baax ma nee na bu ma neexee ma am beneen baay si la fii ci xarnu bi mam cerno na sëriñ ma paate am nga ndigal ci bul julli ak ku sosoo ci ci la ak ku la gëm yi la amoo morom ci xarnu bi te raw nga mboolem ab imaam bu toppul Seyxunal Xadiim te buñ demee yowmal xaam tase këgën ci xarnu bi maam Cerno ne sëriñ ma paate am nga ndigal ci bul julli ak ko sosoo ci yow ci la ak ku la gëm te xam yi la amoo morom ci xarnu bi ci tun mu woo gewel ne ko sas naa la yow nga yéene ko sun murit yëpp dégg ko si la du maasam xarnu bi libaas ne cerno maa ngi ñaan loolu nga bàyyi rekk noon loolu wër na kay borom ji naan loolu wër na mboolem xarnu bi li tax ma bañ nga yeene ko am ci yu weddi ko lakk te ba guma ko ko nu woor ndax xarnu bi sëriñ ma baate am na ngërëmal cerno moom am ngërëmal Seyxul Xadiim ak mi borom islaam am ngërëmal waa xarnu bi ba fi jógee borom malaan baayab karaama moom yaman sëriñ ma paat ba fi jógee borom malaan baayu karaama moom yaman mbaax ga yor ba dem ji naan banoo karaa ci xarnu bi rijaal ba sey wa sey ruuyamu faj dootuñu say rangoona mbooti bolle may rijaalu laa ci xarnu bi naar ma rastafaal wallaayi fallu moo woyof tabe ànd ku fit way deng ay waxam rafet wàcc na moom ci xarnu bi muhammadum libaas de kon moo wuutu bolle mbër ma way moo maandu moo gore taway am moroom ci xarnu bi yaram ba Seex Ablaay Si la yàlla na mel ni moom ci la yor baati namba ak fulla yàgg fi moog waa xarnu bi wàlli yu seexum faati njaay wuutu na boole ci wilaay wax jum laa wax day mën a fay wallaayi bor ci xarnu bi ab yaaram cerno faati gay ak kosondo ya ñoo kaway ànd rijaal ba baayu may am cey ngërëm ci xarnu nan ñaan ca ñeema tuddagul nu may nu saayir ak nu nu ñaan ci bolle ay ndimbal nee leen amin yeew xarnu bi xaleelu leen ma bakk jàmbaari daaru Cheikh Modou Kara Cheikh Modou Kara sañ sa xanoon sama sëriñ Modou Kara maay sa sëriñ sëñ Cheikh doon sëriñ Modou Kara maay sa sëriñ su demee nga def sëriñ sang ba ji te daaru ji sa si la diween sëñ Cheikh sëriñ Modou Kara maay sa sëriñ suma ma demee nga def sëriñ sang ba jiite daaru gi tam gis na ko raw nga kudul waa daaru gi am nga ca jom amal nu jom Cheikh Modou Kara jàmbun fi jaawaleeg sangam daa jëf ngërëm ba am ngërëm jëf Seex si la diwaan mbër mi nu gëm jox na la cër ci daaru gi Samadu Kara am nga jom amal nu jom am nga ca amal nu ndam aw sasangi aw sasangi aw sasangi nag moom itam an def diwaan ni daaru gi Samadu Kara lala sa baay sason am nga ca jom amal nu jom am nga ca nu am ca aw sasa ngi nag moom itam def diwaan ni daaru gi se Mam Fallu Njaay xewar ma woon Mam Fallu Njaay xewar ma woon mook seex diwaan kenn di la yen mu di ki toog xilaafa gi maam Fallu Njaay xewar ma woon mook diwaan kenn la yen mu di ki toog moom kii di seexum faati njaay moo wutu bolle ci wilaay moo furli seex malaan sa moom ma ci daaru moom kii di seexum faati njaay moo wutu bolle ci wilaay moo furli seex malaan sa baay yenoon ci daaru gi Seex Amadu Kara moom kii di seexum Faati Njaay wutu seex diwaan sa baay mi la yenoon ci daaru gi Seex Amadu Kara samaam def ko ni seex mbaa ni samaam di ko dawal ni daaru gi ca Modou Kara ku di murit bu gëm Kara ku di murit bu gëm diwaan ku di sëtëb borom diwaan gëmal ne seex gëmal ne seex gëmal diwaan karaay loxoom ci daaru gi ku di murit bëggam diwaan ku di sëtë borom diwaan gëmal ne seex ñi moom diwaan karaay loxoom ak dëgg ngi semar du kara réew mi paxam seex faati njaay réew mi paxam seex faati njaay semar du kara maam Cheikh Faati Njaay ruugu mu xool ba def la waay raw nga te am nga ay médaay ràññee na tam waa daaru gi Cheikh Modou Kara Cheikh Modou Kara ab sët bu dee jëf-jëfi maam ab sët bu dee jëf-jëfi maam am nga ramal baaya ki maam ay taalibeem nañ mel ni mbaam ay taalibeem nañ mel ni mbaam an def diwaan ni daaru gi yéen taalibeey karaasi la yéen taalibeey karaasi la yéen taalibeey karaasi la yéen taalibeey karaasi la yi roy ci moom te am fulla yen bi nan ci am fulla nan def diwaan ni daaru gi yen taalubey karaasi la roy ci moom te am fulla yen bile nan ci am fulla yamale koog bopp daaru gi samadu kara sunub sëriñ jox nañ ko sas si Amadou Kara sunub sëriñ jox nañ ko sas sas wun ko sas nun lan ko sas sun ko defee muy sunu sas sas wa du booy sun sas a si Amadou Kara sunub sëriñ jox nañ ko sas sun ko sasee nun la nu sas yóbbal la njaay sunub sëriñ jox nañ ko sas buñ ko sasee nun la nu sas buñ ko defee muy sunu sas sas wa du booy sun sas a ngi murit cib sëriñam lum ne nga ku cey ngërëm loo ma am tabal kërëm looloo jox Ceerno daaru gi loolu la ma paate nekke woon oh. loolu ma paate nekke woon looloo ko may dëkkab diwaan loolu la seex malaan ne woon loolu la dénkoon gaynde gi loolu la ma paate nekke woon looloo ko may dëkkab diwaan loolu la seex malaan ne woon loolu la dénkoon gaynde gi Seex Moodu Kara am ngërëmal ko am ngërëm amul lu mën a mel ni moom am ngërëmal ko am ngërëm amul lu mën mel ni moom am na ngërëm ci waajuram am ngërëmal waa daaru gi am na ngërëmal maam libaas samadu kare am nga ngërëmal maam libaas ak bamba mayoon libaas ak ñi fi libaas am ngërëmal waa daaru gi Cheikh Modou Kara mos naa ci moom tuuti ngërëm may na ma man maa ko xam moo tax ma yéene taalu béem mu may nu añ ci daaru gi jëfal kara mas naa ci tuut ci ay ngërëm may na ma lool man maa ko xam moo tax ma yéene taalu béem mu may nu añ ci daaru gi kon maa ngi ñaan borom diwaan ngërëm ci barke Seex Malaan ku di murit bu gëm diwaan am ngërëmal waa daaru gi di ñaanal seexam faati njaay dund ak masaayar soxna njaay may ñaanal seexam faati njaay dund ak masaayar soxna njaay ma ñaanal seexam faati njaay dund ak masaayar soxna njaay ndaxte mu dolli nuy mi daay dolli karaasun gaynde gi mu yàgg a jiite ay rakam Cheikh Modou Kara na yàgg jiite ay rakam may ay dërëm ay taalubeem ma paate ndaak may sunu may nu ni gaynde gi yéen mbooloo mi ne boo ko woo danaa la silla na ngeen ko ñee ndaxte mbooyu aljana di fula ma moo yenu gaal gàndaar ba ak si bam yenni koo deru topp gaal ga silla keroog ba bamba ñëwee gis bopp woo ko ne ko aljana am ca mbooy de silla jërëjëf sibyal sa waay seex si la jàllaa la ko njaay yaa doon nu baara sa baay jaalal moo doom xarna bi uqal bu kaaw maa ngi jooy Seex Silla bàyyi sama waay jooy naa ba saay ngi xuuy ngir naaw des ci xarnu bi uqal bu kaaw maa ngi jooy Seex Silla bàyyi sama waay jooy naa ba saay ngi xuuy ngir naal wi des ci xarnu bi aljuma laan di ñetti fan ci ndeyu koor ca lañu been aljana daaru indi seex moo du toog ci xarnu bi aljuma del si fan lay daaru kenn desu fa woon ñoom ñépp a seere seex diiwaan la mun liggéey ci xarnu bi nee nañu buñ masaa xalam liggéey bu kenn xamul kemam sur xel yi day daje ci moom ñu jox ko dongoy xarnu bee nee nañu kenn yebbu ko woon nun daaru gépp a ko wegoon ku daaru weg dangaa ju dun jay mbindeef ci xarnu bi gàncaxi baatin ñoo ko yor doo gàjji mu jibbi ngeer moo tax ñu fawxa doomi buur kenn yabu leen ci xarnu bi waa daaru samp nañ fa mbër te daaru kuñ samp nga dër moom am na teggiin am na yar kenn du ko daat ci xarnu bi giñ naa ne seex mu du kara ku yàlla may nga xam dara xam ngeen ne lii baayam fara su wan du booy ci xarnu bi wax leen la xat jaakum ndax yàlla sàmmal ko kem kàttan ba li nu bëgg am mu yàgg fii ci xarnu bi bis bi ma tàmbulee di way Seex Moodu di sama waay na ma ci may marawi gaay te yëg ëllëg ca xarnu bi ci barke Seex Borom Malaan ma toj yaman doonu diiwaan moo saytu law ñànde ku man war koo siyaar ci xarnu bi ndem Seex dalaa raw ci siyaar gisal kara far ko siyaar mbiram ma neesu koo xibaar gumba gu tax ci xarno bi sëriñ Moodu maa ngi lay jaal sa baay saab xol di bés di jooy Seex Ibra Jaañ tin na ba yooy daa ñàkk mbër ci xarno bi mboolem bawal gépp a ko jooy ngomeen mag ki ndaw di jooy góor ak jigéen ñépp a ne sëñ seexa dëddu xarno bi ci def lu baax lañ ko gisoon ci wax lu baax lañ ko xamoon cëppe yi diiwaan lay fanaan xëy di bégal waa xarno bi aljuma jëm xëyee këram jëm si bawal ngir gis ñoñam ndekete day tàggoo di dem baatin ba waar na xarnu bi ngomel la yëg si ne fa jaas si ibra jaañ dal laxas ñu ànd wey bambey di fas wëllëre ak waa xarnu bi ñu ànd wa réew di jaal ña faatu woon ak dimbal ña ko namoon moo am jalaal booleeg jamaal ci xarnu bi timis la del ngomeen waxtu wa jot mu jiite leen jóg dugg wa Tàmba tàggu leen defar na leen ci xarnu bi bam fa bawoo la wéy ci leen bawoo fa dal jaar mbaayaan jaar daapa jaar njaarim rañaan di tàggu toog waa xarnu bi mu daldi di biir ndulo defar na leen ñoo yóbbuloo bam tàggatoo ak waandulo la mbir ma xew ci xarno bi gaaw ba teel lañ ko xibaar waa joo ko wax mu nete sër góor ak jigéen ñépp di ser jooyo ba dal ci xarno bi ndax xam ne lii ump ko woon daa xam ne nii lay mën a doon nan sant nun ñii sax ngomeen nun la mujjël ci xarno bi fu masa tollu di gërëm maam cerno faateeg waa këram giñ naa ne moo ko may xorom duma ko tuuf ci xarnu bi musaaka mi wayal xadiim waroon na maa jàng cim xelam ba lu ma wax mu am xorom te am ngërëm ci xarnu bi allahu mi borom di buur jël seex ma paate ñëppaluum moo delsi jël seex sun imaam nan ngoy ci moodoom xarnu bi may ñaan ci yàlla mi samat seex moodu mi dundu bay samat ci barke seex abdul ahad mi ame mbooti xarnu bi at baayam bi am yal na ko ñaar ca lu mu am ci barkeb daaru ak boroom ne leen amiin ci xarnu bi su wëllëree ngi di dagaan ay soxna ak i kër lay ñaan xam naa boroom kun fayakoon du la sewal ci xarno bi Seex Moodu lii ma way libaas wax ko sa baay ba ñàkk maas jum naa ci ngir jànguma bis baasin bu ci xarna bi waroon na maa jàng ba fer fu way wi dënge ma defar giñ naa ne kon ku ko nafar du weddi lëf ci xarna bi maam seex ma paate lam yoroon seex si la mi la ko joxoon lépp ak ñu boole jox mbat ngëb sëriñ ci xarno bi li seex yoron lépp ci yow njàmbaar ga ak fit waa ci yow jaliil ja ak mbaax gaa ci yow yàlla na wóor waa xarna bi sag yàgg moom la nuy dagaan yàlla mi moom kun fa yëkkoon ci barke waa daaru manaan amiina yéen waa xarna bee ñaan fu ma ne xuus ku fay ku baax na ne ma nuus jàppal ma boppam ba ma rus li des ci mboolem xarno bi buy nit ku weex na ne ma ngéej buy nit ku ñuul na ne ma ngéej wërsëg wi mel ni duu si géej may jëf ci yi xarno bi xarno bi bàmba moo ko moom tuubaan ci biir ak ak ñoñam ku nanguwul muy sa boroom génnal ci mboolem xarno bi mala ni duniyaa wa oxraa jooja ba wax bàmbaa ko wax ku bañ sëriñ bii moom la sax dorow ëllëg ci xarno bi del sil ci seex Moodu Kara bàyyi seex Moustapha Njaañ li ma ko way du kasara gi ne li ma ko sara daf may jariñ ci xarno bi kaani garab ga daa lewet te doom ba moom wex ba ne xatt lii ku ci xool walla woo xalaat sëñ seex ma dëddu xarno bi ngoyal ci seex Moodu mamam lum la digal nga daw ca jëm giñ naa ne kon danga nga ami ngërëm dee ko siyaar ci xarnu bi giñ naa ne lii ma gis ci yow xamul xamul la xaj baw yow mal xayaam ku ngay ci yow durus fa góori xarnu bi sëriñ moodu sëriñ bu mat sëriñ nga doon sa ndaw gi moo gën mag mu teen doo digle yiw di tegg yoon mu jëm nga rus ci xarnu bi taafeere sittu mam libaas weeru ngëneel nga noo ngi taas ci yow nderaw nga góoru faas te am nga xaas ci xarnu bi seex njàmm yal nag ma tibbal ci la seex bàmba tibbal dongoo ngi yalwaan saraxal ubbil ko bunti xarnu bi